soj tuuti defe naa ñëpp soj sax <laughs> dafa xew waaw nu ngeen nuyu sang yi fi daje yépp ñu ngeen nuyu itam kilifa yi fi daje yépp ñu ngeen nuyu itam wëllëre yi fi daje yépp tabaarakallaahu di nuyu itam waa daayira bi daayiratul mustarshidin wal mustarshidaat mu mel na itam rekk yàlla nu fi dajale ci barke boroom guddi gi mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, yàlla moom moo bind moom moom waaw su ko defee li nu fi dajale am na ñu jóge ba Makka waaw loolu la yàlla dogal yàlla li ko neex rekk lay def mu mel ni kon nag daje woon nañ fi daaw daaw jéeg la ak ba jiitu yàlla may nonu daje fi ren yàlla na nu fi daje déwén ak jàmm mu mel na itam rekk lu xat-xat ñu waxtaan ci mbiri boroom guddi gi dama waxoon ni at mu jot nañu tudd benn maamam at bu jëkk ba tabarkal la ñu tudd maamam cheybat alhamd yi ji tegu ñu tudd haashim tabarkalla bi ci tegu ñu tudd Abdu Manaaf mu mel na itam rekk bu tey bi mi ngi jëm ci Qusay wante yooyu yépp alalu jullit yi la alalu nit ñi la alalu ku bëgg lu baax la suñu ko dee waxtaanee dafa mat di teewlu dafa mat di déglu itam ndax ñu mën ko yéem maamam yi ñu tudd yépp kenn ku ci nekk aada may na la loo xam ni su ko may nit waaye aada moo la ko may aada moo la ko may lu mat a bàyyi xel xam nga maamu teyam mi ngi tudd xusay wante tuddul xusay mi ngi tudd mujamme li tax ñu tudde ko xusay dafa geddoon dafa geddoon famiyam dem ci fu ñoo wax qudaa bi dammil qaaf ka sumaama ñu tudde ko qusay te qusay mi ngi jóge ci qasay waaye ki sore te sa xel du jóg ci moom soreetu la moo tax ñu def ko tasxiir noonu tudde ko xusay maanaam ma nga fële waaye mi ngi fuu parce que ku ñëpp di xalaat loo sore sore soreetu loo waaw <clears throat> dañu tudde ko xusay waaye xasay mooy aji sore xusay mooy aji sore ju tuuti maanaa aji sore ju ñépp di xalaat soreetul lu tax mu sore dafa gedd lu tax mu gedd famiyam dañu bare woon lu ñuy wujj te kujj dafa tas fami waaw su ko defee mu gedd nee na ndax nee na noonante moo gën a yomb wujjante nee na wujj dafa tuuti te gor bëggul lu tuuti moo tax am noon moo gën a sedd am wujj waaw parce que wujj dafay xaw ñàkk fayde aadaa koy def su ko defee ba mu yàggee ba yàgg nag ñu xalaat jëli ko ba mu ñëwee sore ba mu sore jox ko xel bu ëpp ñi mu fekk si xel ma pour penc yépp am jàmm la ko xel ma jox mooy nañu fekk cëri daraja yi ñu sédde ko ñi gàtt xel pénc moo ko defee jàmm am parce que pénc mu tas ku gàtt xel a ko tas te ku gàtt xel boo ko seddee cër bu ko ëpp dootul tal tas pénc waaw ñu ne xalaatam bi rafet na lool ñu sédd boroom xel yu gàtt yépp tabarkal la ndax cër c'est subjectif du dara waaye ki gàtt xel du xam ni c'est subjectif du dara waaw moo tax sédd ko ko rek mu ànd ak moom di jay jay xaaj Maxtaar Caam nee na yen bu la yàlla yenul ne ceetaan may jëkk tay waaw moo su ko defee nag turam dëgg-dëgg mooy mu zamme abukum qusayun كان يدعى مجمعا أبوكم قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر وأنتم بنو زيد وزيد أبوكم به زيدت البطحاء فخرا على فخر gis nga yonent bi maamam bu nekk suñu jurul woon yonent bi rekk ñooy gën ñépp suñu jurul woon yonent bi ñooy gën ñépp waaw waaye aadaa fal te aada palam amul fondement looloo tax am na xaqiqa buy ñëw ñu di ko wax xaqiqatul wax yi ولن دي دم نيوم نيب حقيقة الوحي دال دي وخني الحقيقة المحمدية سكوت دفي كي آد فال اك لجيكم رفت رفت رفت بوحيو واتشارك فاليكو لو يمي dafa fekk nag mag ñi jàmbaar lañu yooyu yépp dañu koy xam mu mel ni kon daje yu mel nii li ci am njëriñ mooy xam lu aada fal ni mu ñàkke njëriñ ak xam lu xaqiqa fal ni mu amee njëriñ waaye nit ñi nag lu aada fal moo leen gënal waaw ndax xaqiqa bu la falee ngay surga ba faw xaqiiqa bu la falee ngay ba faw taxoon yonent yi sonn taxoon yonent yi nga boo demee ci dëkk dañoo yett statut tudde ko kilifa yonent bi Cheybat alhamd bi jur baayam alquran daf ko yettal statut ci haasim alquran daf ko yettal statut waaye tudd ko waaw te dafay laaj nga topp ko ni nga koy toppe mooy fan la seen cër di yem seen cër su fekkee ni cheybatul hamd la su fekkee ni haasim la su fekkee ni abdu manaaf la su fekkee ni qusay la ñépp naw nañu leen ñépp jox na leen cër te dafa bokk ci jikko arab bu ñu la xamalee maam yu baax taggal la ko baat yi ñu leen di tagge bare na wante baat bu am solo bu ñuy tagge maam bokk na ca sa maam de làmbaayam laab na maanaam tilimalul boppam xam nga boobu góor ñi dañoo làmbaayu booba sol tubay xewul ku sa làmbaay set nag tabarkal la sa jaan wàcc na ndax booba sa bakkan moomatu la ñu di ko taggee nit di ko taggee maam yu baax yi soo demee ca way bi moor saasum doomu xaadi ma jaxate kel wayoon sëriñ Babacar si ca Ndar ko koy wax mi ngi wax ni laqad kuntu قبل اليوم أسمع أنما جدودك قد كانوا أطايب مئزر أنا الإزار آه góor gu man way la xaritu sëriñaal Alioune géey la woon benn bakkat dafa dafa ñëwul ndar rekk la te moom loolu sax du mbiram te dafa seet si Serigne Babacar si ndax dafa am ñu ko wax ni daal dafa di borom barke rek waaye demewul noonu léeg-léeg mu am ci réew mi wante dinañ cee dellu xusa yi tëralinam dara gënu ko jekk ba mu dellu see ñi doya di ñépp sedd na leen cër ñaam xel ñépp xañ na leen cër loolu moo doxal pénc ba ndax boroom xel soxlawul cër bu ko xëccoo rek xel ma des na waaw boo gàttee xelit ku la séddi cër am sa jàmm boogu noonu rek la waaye itam am lu mu jur moo di ko ne cër ba ñu la sédd am na ci koo xam ni lu ñëpp bokk lañ ko sédd mooy dañ ko sédd daaru wa te daaru wa mooy seen parlement kenn waru ko séddoo dañ ko fa war bàyyi bu mag ñi daje dugg fa waaye pour am jàmmam ñu sédd ko ko mun na ma sàngara te amu ko mu jaay mu jaay daaru nadwa ci mbuusu sàngara wata ñu daan tooñe kaaba gi ni mbuusu sàngara lañ ko jaaye waaye daaru nadwa la ñu jaaye mbuusu sàngara seetal yàlla xikmaam rek ni daaru net wa toll ak ni mu sëse ci kaaba gi ñu di ko jaay jaayewuñ ko xaalis xanaa jaaye ko mbuusu sàngara te dafa am lum ci nam su ko defee cër yu rëy yi bu ñu ko seddee famille rekk mu yàqu parce que famille lu turam rëy rëy nit a ngi dend ak moom ëppale ko lépp loolu moo tax bi yonent bi ñëwee ñu ni kon xaqiqatul waxyi te moo di al xaqiqatul muhammadiya dana dàq cër yépp ba moo tax yonent bi tàmbali bi mu tàmbalee yàlla ci boppam war a saxal xaqiqa daq aada waaye du tee mu wone ni bi wax yu ñëwagul maamam yi cër bu ne am nañ ko ci wàllu jikko bu rafet lu lu yéeme la lu mat a bàyyi xel la su ko defee yonent bi ci boppam li mu indi la mu jëkk wone mooy ni moomu ko pénc mi mu woote itam dafa wone ni péncu yàlla la i ngiy woote jëme ci pénc ma waaye forcewul kenn léegi daal ku mu jubu nga ñëw bokk ci ku mu jubuwul nga bañ ñëw wante bul tooñ dafa mel na mën na mën na jëriñ ñépp yonent bi forcé nit ñi indiwu ko li ko indi mooy wax nit ñi li yàlla wax yonent bi forcé nit ñi indiwu ko li ko indi mooy wax nit ñi li yàlla wax su leen doyee ñu ànd ci su leen doyul ku mu ci doyul nga bàyyi wante bul tooy lu mat a bàyyi xel te yàlla itam moo deme noonu ndax kenn nag genewu ko moom yàlla sunu borom waaye lu naqadee dégg la ni yonent bi dafa jottali li ko yàlla wax wante forcé kenn lu mat a bàyyi xel su ko defee ca iqra ja moo ki yàlla ca iqra lu mu jële ci moom jox ko nit ñi lu mu jële ci moom jox ko nit ñi ku wóolu dugg ci ku wóoluwul bàyyi mu mel ni ci biir jamono ci lañ koy gën a mën a dégge ndax forcé nit ci ngëm forcé nit par par la tudd waaye tuddatul ngëm te par parloo amul njariñ maa gëm ak maa far du benn maa gëm moo am njëriñ waaye maa far amul njëriñ su ko defee nag am lu ñoo tudde diine ñu ni ci cadre diine la yàlla bëgg jëfante ak yonent bi ñu ni ci cadre diine la yonent bi bëgg a jëfante ak nit ñi ñu ngi nag lan mooy diine ndax bare na ku tudd diine te xamuloo luy diine te dafay dox boo tax ca mujj ga ñu ni inna diine inda allahi gis nga nit ñi dañuy jaawale diine ak jaamu yàlla te diine dafa làmb lépp moo tax ñu tudde ko lislaam su ko defee li lay won ni yàlla bàyyiwu ci dara moo di ki dugg ci wanag tuur ndox lu tax ñu bëgg mu setlu lu tax ñu bëgg itam mu delloo cant yàlla mi ko may ndox mi génn te bu génnul bokkam yépp daje fa xam nga kuy toppatoo ba foofa diine ba mu tëral desalul dara bi mu tëral desalul dara te itam ku ko jàng dégg ko ku ca sore am ci leer maa ngi ko wax ak sama benn sët gi démb ci daayira bi la bokk ndax dafa am ñu bëgg jaawale ni wàllu googu ci wàllu yàlla mag ñi rekk ñoo ko mën a dégg waaye ndaw mënu ko dégg te kooku erreur gënu ko garaaw ndaw sax lañu war a gën a sonal pour mu dégg ko ñu ngi mel na sa doom di dem université nga ni ko bu fa jàng mathématique ndax yombul noonu la mel ñi nga xam ni itam dañu bëgg gàllankoor tariqa dañu naan la li tariqay jàngale nekkul ci diine te erreur gënu ko garaaw parce que kenn du yebal sa doom université di ko wax matière bu jafe bu jafewul danga ko bàyyi su demee ñu jàngal ko lépp suñu ko jàngalee lépp lu ci ne toppatoo ba ca war mu def ko dana ko dégg su ko yitteelee dana ko dégg waaye wattul foofu yooyu mag ñee ko moom ku jékki ba toll ni mag ñi sog a jàng dara lum lay jëriñ loolu mënul nekk moo tax diine dafa mëtale bu tuddee lislaam rekk dafa mëtale te yàlla nee diine bi mu jox muhammad mooy lislaam diine bi mu jox Ibrahim mooy lislaam diine bi mu jox Moussa mooy lislaam diine bi mu jox Yuusuf mooy lislaam diine bi mu jox Isa mooy lislaam diine bi mu jox Muhammad mooy lislaam lislaam mooy jébbalu ba defati ci sa dund sédde ko yàlla ku dem di sedd yàlla ci sa dund ba dugg ci wan ak tuur ndox sante ko yàlla dara desatu ca dara desatu ca bu ko defee nag yaay góor góorgóorlul sa bopp nag pour xam looloo tax Sidi El Hadj Malick waxoon ni ku ñëwati ci kër gi ba lañ ko jàngal fiq nañ ko jàngal tawxid ak tasawuf ba noppi mu ni parce que moom loolu la la la làmb gisul lu ko dàq te booba mag ñi dañu naan bala nga jàng tawxid ak tasawuf na nga nekk ba bejjaaw boo boo négee ba bejjaaw lii yàlla bëggoon ci yow paase na te mooy sa kàttan yàlla sa kàttan la bëgg ba moo tax di nga gis xale bu tuuti am diplôme yu day na ñey waaye daf daf ca sonn moo tax mu dégg ko waaye bu fekkee dañ leen di diine euh, lu jaggu la maanaam jarul nga di ci sonn noonu te liñ ciy jàngale kenn déggu ko li li ñu jàngale ci diine moo tee tubaab yeen nelaw xamuloo ni ah? موتيتو بيان لو فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لا جد لا ينفي دفاي بودي تواب يدي نانتي توبون دو القرآن لا جد فاي بودي تواب يدي نانتي توبون دو القرآن léeg-léeg gis tubaab bu mer ni non non ja dàqul dafa bëgg a def face ki mu bëgg a yàlla moom lay wax ci alquran laam yooyu laa uqsimu bi yowmi alqiyama laa uqsimu bi hada albalad laa yooyu yëpp benn du ci bu nafi ma yàlla mooy bëgg buute waaw moo tax mu ne uqsimu bi mawaqi an nujum maa ngi giñ ci sama xam-xam bi waral siit yi nga xam ni moo téye bëddéew yi ba du ñu xëy këppandoo sama xam-xam bu rëy bu sell boobu man yàlla maa ngi ciy giñ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ene ngiñ gu màgg la waaw pour won la ni bu ñu xasee ni l'islam dugg nga ni ruba waaw parce que lépp dafay dugg si yonent bi yàlla daf ko wax ni ko ci mi ma wax nga wutal ko xeetu doomu aadama pénc la mu nga xam ni surga bu xëy na jéem a nekk sang sang bu xëy na jéem a nekk surga ku mës gis pénc mu mel noonu parce que li nu miin ci pénc mooy bu sang xëyee bëgg yokk cangam bu surga xëyee dal di bëgg a doyloo surgaam te ku ko def nag génn nga péncu yàlla yàlla dafa bëgg péncam soo dee surga boo xëyee fexeel ba nekk sang boo dee sang fexeel ba boo xëyee nekk surga mooy mën a tax àndandoo bi jag waaye naa nekk sang ba faw nga nekk surga ba faw kooku du lislaam mënum nekk te it beneen affaire am ci mooy pénc la mu nga xam ne xare maanaam ay dootul tudd ay waaw jàmm dootul tudd jàmm penc la mu nga xam ne xare dootul tudd xare nattu lay tudd nattu bi ku ko wàcce bàyyi ko mu àtte nattoom jàmm dootul tudd jàmm ki wàcce jàmm ji bàyyi ko mu àtte jàmm su ko defee boo bëggee sikki yàlla ngir ñàkk jàmm mu woon la ni dama laa nattu loo ci mën asa an takrahu cheyan wa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibu cheyan wa huwa charrun lakum wallahu yaalam wa antum la taalamun yàlla li mu gën a bañ mooy ku bëggee jàmm ku bëggee jàmm ba fàtte ni nattoom la ak ku ragal ay ba fàtte ni nattoom la ñoom ñaar ñëpp jumtuwaayam lañ te ku xas jumtuwaayam mu xeex ak yow waaye boo ko fi bàyyee déglu aada ah aada tudde ko xare ngay nàng nàng lu la neex nga def daal tollu jàmbur yi rey xale yu tuuti fitnaal mag ñi fitnaal jigéen ñi lu la neex nga def wante bu la wóoree ni jumtuwaayu yàlla la danga koy jox sa nopp mun la bëgg ci xare jàmm ñëwee nga jox ko sa nopp mu ni la lii laa bëgg ci jàmm ji mais su amul àdduna tukki parce que kon bu jàmm amee pecc lay doon ba faw ak noos waaw pecc ak noos lay doon ba faw bu ay amee musiba lorante lay doon ba faw te bu ci ne jumtuwaayu yàlla la danga ko ci war a déglu mun la jaar ci fii boobu penc la bëgg mu am bu ko defee aada dootul àtte xare dootul àtte jàmm asamaan waaw bu ko defee nu dellu ca ki ni sang la ne fexe ba nekk surga mooy jàmm ci ndax aada folleeku na xaqiqa moo fal ki ni surga la ne fexe ba nekk sang ndax aada folleeku na xaqiqa moo fal tànk xamuñu loolu yëf yi du dox ndax Cheikh Seydil Hadj Malick radiallahu taala anhu dafa daan wax ni li triste te triste mooy réew mi ñu nekk diine du dem mukk ba daan fi aada aada rek mooy daan diine ji te feeñ na waaw te feeñ na nag waaw jàkk sax boo ko dee tabax aada tax nga di ko tabax du leneen jiim nañu ba tàyyi mu dellu ci gannaaw mu ni du ci dellu gannaaw parce que xam na ni réew bi ñoo tuddee Sénégal du ko yàgge ba diine yenu aada dóor ci suuf abadan abadan aada mooy yenu diine dóor ko ci suuf te lu mat a bàyyi xel la waaw yàlla dogaloon ñemewul aada musu ko ñeme te daan na ci wax ba dégg naa ci Serigne Babacar si mu ni Maodo bu dëkkul woon ci réew mi ak bokk yi mu fi am xanaa dëkk feneen kon ni ñu def ñoom Shafii yi dinañ ko ko def dinañu xëy assassiné ko parce que yi muy wax yu garaaw la te lu ci nekkat ci xaqiqa xandate ko ndax parce que nag xëy di yër di yër bu mujj mu ne ndekke ku dul yàlla rek ku dul yàlla def nga commerce ci diine ñu ni ko yonent yi nag mu ni ku dul yàlla laa wax xanaa loolu mooy yonent yi sax def nañu commerce ci diine pour wane ni yàlla rek a mët soxlawu ko ba lu mat a bàyyi xel la parce que yonent bi léeg-léeg tànkam bëgg dugg ci lu ñoo tuddee domaine réservé yàlla ni ko na sa tànk yam foofu parce que dafa am loo xam ne ku ci dugg des ci dafa am loo xam ni ku ci dugg des ci looloo tax yàlla nanguwul domaine réservé am kenn teg ca tànkam nangoo ko wane na ko ci ñaari barab barab bu jëkk bi moo di dafa wax yonent bi ni ko maa ngi laa nettali lenn mu ni ko gis nga dikkagul wante comme sama namm namm aju na ci ni ma la koy nettalee noonu lay nekk parce que man li ma bëgg rek mooy am waaw Serigne Cheikhou Sy nee na bu ñu nee buur fari man yàlla rek waaw te bu ñu nee buur fari man yàlla rek ma ni ko ah, sañ na de ndax ku rey buur yëpp rey yonent yëpp sañ nga waaw mu ni yonent bi gis nga fu ne bëgg naa fa yiw dignité dama ko bëgg ci nit bëgguma jaam buy jàq yenn njàqare yu ñàkk fayde ñu ko dina recevoir ëllëg suma dé atté àtte dina recevoir ben délégation bo xamni ko admirer sen dignité la parce que dama len may ci aduna xamal len ñu weddi ci bir xam-xam bi ci bir am ëllëg bu ñu taxawee ci sama kanam seen dignité dana tax ñu wax ma ni rey nga ñu ñaari yoon rey nga ñu yow yàlla sunu boroom rey nga ñaari yoon rey bu jëkk bi sunuy bokk nu wër nga rey nu ci seen biir ñu yenuñu yóbbu ca sëkk ya suul ñu fa bañu ñu nga dekkal ñu té bi nga nuy dekkal nu ngi dégg ni seen tank yi di doxé di del ngir lan ngir associé ñu ci ni ñuy ficeler suñu dossier ñoo sa jaam yoo xam ni duñu najaay duñu bàyyi duñu xarit duñu mbokk sa jaami bopp yoonu yónnee ñu ñëw indi dossier ba lañ ñu war laaj pour mottali ko ñu laaj ñu ko ñu ficelé dossier ba ci suñu kanam nga rayaat donc rey nga nu suñuy bokk suul nu nga dekkil ñu ñu janoog ay malaayika yu fi sile suñu dossier nga reyaat léegi nga dekkalaat est-ce que est-ce que euh, dekkil ba nga ñu dekkil pour won ñu sa sa mët ci koo xam ni su la neexee ngir riite la ko nga ni ko sa dossier ngi sunu borom mënu yónni ñun ñooy malaayika yi amee sa dossier yow dafa am nag yu ñu la ciy laaj nga leeral ko ndax bu la dee atte atte la ci màndu ray bobu mom le scientifique yi tuddee eh, yonent yi ñoo résurrection mais scientifique yi processus de restitution lañ ko tuddé looloo tax waxu yonent ak waxu scientifique du ñu bokk scientifique bi bu waxee du laaj recherche mais scientifique bi waxinam mooy sabab recherche parce que amul langage yonent bi mais benn la parce que euh, bakkan lañu la xañoon delloo nañu la ko pour soxla bi soxla bi jeexee ñu xëccaat ko nga tëdd nag nelaw ñu ni nag yàlla léegi lënt jeex na baat bi ci yow la dese waaye sañ nañu la wax nag li nu bëgg mooy suñu dignité mayuñu nu di la ñaan aljanna parce que mérité wuñ ko suñu dignité itam mayuñu ñu naan la yóbbu nu safara parce que itam safara pour mu lakk nu am na lu ko gën ci nun moo di est-ce desaloo ba tey ay suuf feneen walla ay réew feneen yoonu mën yóbbu lu nu weddi woon ci yow ñu saxal ko lu nu tële woon a jaamu pour yow ñu def ca yitte ci jaamu la rabbana amattana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn fa atarafna bi dunubina فهل الى خروج من سبيل اسكا ام غفون من يغف فهل من عوده الى كوكب من الكواكب لنعبدك فيه ابد الابدين سخلاتو ني اجنا رغلاتو سفر سفر gis nga waxin bi yàlla yëg na ci ni nit yi dignité lañu parce que yàlla ku ñàkk fayda rek la bañ bi ci des gis nga waxul yonent bi lu muy tontu parce que kooku domaine réservé la bu ko waxee yonent bi rek dugal ko ci lu mu bokkul na yem fa mu war a yem moo gën parce yàlla mel noonu de bi ci des mooy dafa am ñu tudde seen bopp yahud ak ñu tudde seen bopp nasara ak ñu tudde seen bopp sabiin yonent bi war leen a combattre te ñi ko tudde seen bopp pànk lañu mën nañu fexe ba yonent bi tarxiisu te mooy mën nañ ko pousser mu combattre leen balaal ci Moussa dara adduna tukki mën nañ ko pousser mu combattre leen balaal ci Isa dara bu ko defee àdduna tukki yàlla ni ko bu ci dugg mukk bàyyi mag na kooku domaine réservé gis nga yooyu lu lu lu lu a bàyyi xel la ku toll ni yonent bi yàlla ni ko yemal fii